Doudou Diouf yow doomi Cees nga waa Cees yëpp sumu bàjjen aw Cheikh Tunkara di ko delloo njukkal ah, sama mbokk yëpp foofu leen delloo njukkal ehm, Doudou yow ci loo yëngu waaw man ñu ngi ñu ngi leen nuyu di nuyuwaat uh, sama collègue bi ma fekk si plateau bi muy Marcel waaw soo ma laajee loolu dinaa sawar tontu si mooy dama yëngu si politique ban koy politique yow politique bi may yëngu di maa ngi politikal di jàppale Idrissa Seck. kañ nga door di politique. waaw bi ma dooree di politique mën naa ni 2000 laa dugg dëgg-dëgg. ci 2000 ba 2015 muy fukki fukki at ak juróom. waaw boobu ba yow lan nga def si politique. waaw su fekkee soo ma laajee li nga ma def si politique dama si sawar di tontu parce que ñun dañoo dugg si politique dugguñu si politique pour. pour di enrichir wala di utal suñu bopp dara. waaw doodul xam nga loolu benn politicien du ñëw ne dama dugg si politique pour enrichir sama bopp pour utal sama bopp donc yow te yaa ngi layal sa bopp loo xam ni kenn jiiñu la ko. xam nga fii kenn jiiñu la loolu dañ la rek lan nga defagum ci politique. waaw waaw laa jëm xam soo nee ma lan nga def ci politique. Ah. Euh, dama si sawar si tontu parce que. yaa ngi koy bantuwaat. ñun politique <laughs> dañ dañ si dañ si dugg. laa la loo defagum. lu ma defagum si politique mooy. liggéey naa ci politique loo xamante ni sama gox ba ma dëkk si wàllu jàppale nit ñi parce que ñun politique de développement la ñuy leen di jàppale nit ñi. ni ñu leen jàppale mooy fexe ñu am. ñu ngi dégg de waa gox ñu am dëkkuwaay yu set fexe ñu am yaakaar goo xamante ni mën nañ ko am yaakaar ci politiciens yi fexe euh, jàng mi nga xamante ni xale yi ñoo ngi koy jàng mu tegu si yoon fexe. sécurité bi war a am si dëkk ñu jëm ko jëmmal jëm ko taxawal. donc yéen si politique bi ngeen di def ngeen si wàllum nit ñi seen dëkkuwaay set nit ñi seen jàng jàppandi nit ñi ñuy euh, am yaakaar si politiciens bon yéen lan ngeen di def pour dëkkuwaay set. waaw xam nga li ñuy def pour dëkkuwaay set xam nga dëkk dafa am nu muy doxee dëkk dafa am compétence yoo xamante ni dafa am ñu ko moom. ñu ko ñu ñu ko war a def ak ñoo xamante ni ñoo ko moom man yàlla def na man conseil municipal la si benn commune ci commune yi nekk Thiès ñu commune zone nord commune nord yàlla def bi ñu faloo si sunu mandat bii ñuy doog a door ñoo ngi posé acte yoo xamante ni yu am solo si wàllu cet gi parce que dinañu taxawal. boo yaa ngi may wax mandat bi man maa ngi lay wax fukki at ak juróom yi nga nekk si politique lan nga def. loolu laa wax de yow yaa ngi tëb ñëw si mandat bi du d'accord mais Doudou xam nga yéen euh, parce que bu fekkee da ngeen di liggéey pour politiciens yi nit ñi am yaakaar si ñoom mais Doudou da ngeen ñu nax parce que politiciens nan lañ mën a am yaakaar si ñoom te ñoom dañuy wax lu dul dëgg. dañuy dikk loo xam ne duñ ko def. dañuy ràcc jëmale seen boor. te seeni bopp rek la ñuy yëngu. ba pare ngeen bëgg ñun ñu am yaakaar si ñooñ Doudou yow yaa ngi waaw xam nga xam nga xam nga xam nga loolu nga wax cest à yi xam nga soo waxee rek du. caaginu politiciens yëpp mel noonu. ban politicien moo mel noonu attends man meluma noonu. Ah, parce que règle boo gis man gisoo moom politicien bu ne man noonu laa mel. am nga sañ-sañ mais man xam naa sama bopp te la gën a xam est-ce que gis nga yow Doudou. waaw gis nga politicien bu ne moom noonu la mel. ni man sama bopp laa xam. moo tax bandi la fii. waaw Sénégal benn politicien musul wax ne. Mhm. man damay fen mhm. damay tas yaakaar damay wor. damay raaj jëmale sama boor. Mhm. benn politicien mosu ko wax te ñoom ñëpp loolu la def. ba léegi dama ni man laa nii la man politique ak ki ma àndal sama leader bi ma àndal mu Idrissa Seck. moom du def loolu du def loolu. te man gëm naa ni soo ma laajee dinaa la wax lu tax ma la du def loolu. bon kooku affaire bi du euh, Idrissa Seck duñ ko centré ci personne wu Idrissa Seck mais yéen par exemple mhm. euh, seen parti réew mi mhm. est-ce que xam ngeen lan moo tax élection 2007. ngeen amoon quatorze pour cent yu deux mille douze yi ngeen wàccaat ba sept pour cent est-ce que xam ngeen lu tax. waaw lan la man sama jàngat euh, deux mille sept fi ñu toll woon gën a wàññeeku fu ñu deux mille douze bi fi ñu toll loolu jàngat bu simple la parce que deux mille sept dañoo duggoon ci population yi waxtaan ak ñoom dem fi gën a sori si Sénégal waxtaan ak ñoom war leen suñu programme. yàlla def li ëpp si Sénégalais yi ñenn ñi gis programme boobu am si yaakaar jàppale Idrissa Seck 2012 bi nag contexte bi dafa am uute. parce que defuñu loolu. lu tax defu leen ko parce que li tax defuñu loolu réew mi dafa nekkoon si si si diggante boo xamante ni il fallait que mu amoon ay nit yu mel ni Idrissa Seck ñu mënoon a génne Sénégal si lim naroon a dugg mooy dafa amoon xeex boo xamante dañ ko doon xeex ci. si wàllu li fu naroon a taxaw ak wàll li nga xamante ne dañ ko naroon def si réew mi. mais Doudou man dama ragal ni wax jii sax du du yóbbu suñu réew mi kanam parce que bon yow yaa ngi layal sa bopp mais am na loo xam ne doo ko laal. mooy 2007. da ngeen amoon euh, da ngeen amoon euh, nit ñi voté leen. Mhm. parce que Idriss Seck dañ ko jëloon. Mhm. tooñ ko tëj ko kaso. Mhm. Sénégalais daa gaaw a yërëm. ñu yërëm ko votel ko. bi mu génnee par guddi muy dem seeti Ablaye Wade di mhm. dem di ñëw mhm. sénégalais yi ne kii yëfu mhm. caméléon lay def ñu dañ si moom ñu néew voteel ko waa cees dong voteel ko léegi ñun fu mu toll nii duudu suñu réew mi pour yow lan moo ko yóbbu ca kanam waaw bala may dem foofu nga mujjee laaj naa leeral tuuti si li nga wax c'est-à-dire non non non non il faut ma leeral tuuti parce que da nii 2007 euh, Sénégalais yi dañ ko yërëmoon parce que dañ ko tooñoon dugal ko gindi ko mu mu génnaat di demaat c'est-à-dire xam nga Tunkara Sénégalais dafa am loo xamante ni il faut ñu jàngat ko ci mbiru Idrissa Seck Idrissa Seck 2007 kaka tooñoon dafa nekkoon si loxoom bi mu amee fukki at ak ñeent. mais Doudou est-ce que non non parce que yaa ko dugal parce si dugal. non c'est que yow. non da nga xam nga da bañ laal loolu. non da ko laal naa ñëw. tegal foofu sa baaraam rek dinaa ñëw si li nga laaj du ma daw dumaa ñëw si non di tax dina avancer suñu réew parce que dafa am jaar-jaar boo xamante ni Idrissa daf ko jaar loolu Idrissa Seck du avancer suñu réew dina mën na avancer suñu réew personne Idrissa Seck mën na avancer réew mi waaw léegi ah. Doudou man xam nga man lu ma intéressé franchement nëbbu ma la mooy yow nga mhm. defal ñu jàngal si suñu réew mi lan moo ko yóbbu kanam bu fekkee nag da nga jàpp ne que Idrissa Seck moo ko yóbbu kanam nga wax loolu rek ñu avancé xam nga fa la jëm xam la dinaa ñëw fi nga ma laaj réew mi li koy jëmal kanam mais duñu nangu nag dellu si waat mu jaar ak Ablaye Wade non loolu duñu ko nangu nag mais réew mi pour mu jëm kanam lu tax ñu ñu gëm ni Idrissa Seck mën na jëmale réew mi kanam dafay teg ay actes yoo xamante ni dañ ko gis te dafa bokk ci li war a développer réew bi si jiitu soo fàttali ko ñëpp xam nañ ni réew njàng ku ko fonk dooleel jàng réew mi mën na jëm sa kanam parce que dafa bokk si développé réew Idriss Seck en 96 soo fàttalikoo pour pour génne pour yombal état bi si coono yii mu am tey si université xale yi néeg yu xat yi université bu xat sa jëndoon na ab immeuble à Dakar jagleel ko ay étudiants thiessois ma ñu gis ni loolu vision la boo xamante ni képp kuy put leader politique su fekkoon defee nga loolu tey coow coono bii état bi am. si biir campus universitaire yi du ko am bi mu ko jagleelee képp koo xamante ni Cees waa nga di étudiant donc pour réew mi avancer si laa jëm il faut politique yi politiciens yi jënd ay immeuble def fa ay étudiant non non non non non non waxuma la loolu c'est-à-dire dama ni la li xew si université yow yaa ma ko gën a xam université xat na xat goo xamante ni tey waruñoo bàyyil état bi rek ñu ni mooy solutionner li xew ci université. Doudou waa doo bàyyi Idriss moo ma gën a intéressé parce que politiciens yi moom léegi politique. Euh, xam nga politique euh, nekk na loo xamante ni du da ngay dem si école jàng. ah kay non attends loolu bu ko waxati de mais eggale mais eggale xam nga xam nga tamit sa émission bi dafa nekk émission bu am solo bu Sénégal yëpp di suivre kon nit su waxee. foog nga bàyyi ko mu développé non non li nga wax tamit daa amut li ma lay wax nit ñi toog dem jàng science politique ba ñëw nga ñu ne politique kenn du ko jàng si école loolu tamit non non waxuma la waxuma la politique du ko jàng si école ah dama ne la politicien de politique xam nga politique <laughs> nekk na mbir moo xamante ne ñëpp xam nañu définition politique mooy c'est l'art de gérer la cité cité kooku même da nga koy dugal si islam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko wax xubbul watan minal iman te bëgg sa dëkk si gëm yàlla la bokk bëgg sa dëkk di defar sa dëkk lu baax dafay nekk politique. parce que loolu mooy waa léegi da nga bëgg wax ne yow politique. donc yow jàngoo ko daal maanaam. man jànguma waaw loolu rek benn école jàng politique waaw loolu rek yomb na nag. waaw dama lay politicien itam bu leen laajee fii ngeen jaar léegi duur. Mhm. yow pour yow tey suñu réew mi. Mhm. nga ni pour defar ko lan la laaj. réew mi pour defar ko il faut ñu jox ko ay nit ñoo xamante ni xam nañu ni am nañ xarañ am nañ vision bu leer. bu ñu yaakaar ni war naa mën a jëmale réew mi kanam parce que réew li koy jëmale kanam du wax ju neex du baat bu neex leneen réew li koy jëmale kanam mooy vision yu leer teg ko si axe yu clair. te loolu. waaw euh, yéen seen njiit Idrissa Seck. noonu la mel loolu suñu njiit Idrissa Seck loolu la ñu gëm ni moom la mel parce que. da ko wane si réew mi wane na ko si bi mu nekkee si nguur wane na ko bi mu nekkul si nguur parce que dafa am loo xamante ni Sénégal dafa commencé raar dafa commencé ñàkk si politiciens yi. te loolu bokk na si war a mën lii delloo réew ginnaaw. yéen Sénégal waaw politiciens yi actuellement nii. <laughs> Hmm. ngor dafa commencé jug si politiciens yi. ah yàgg na. jom dafa commencé jug si politiciens yi. Hmm. kersa dafa commencé jug si politiciens yi. te suñu xoolee ñun suñu leader Idrissa Seck. am na jom ma la limal lii am na ngor am na jom am na ngor am na kersa. très bien kenn mosul dégg Sénégal je défie quiconque kenn musul dégg Sénégal sa jëmal jël baat bu ñaaw. jëmale ko si doomu aadama wala jëmale ko si moromu politicien. ah waxul woon ne Ablaye Wade kii simple spermatozoïde la. waaw ah, mais dégg loolu foofu foofu foofu nga dugg neex na ma trop xamul tax mu neex ma. tax mu neex ma. Hmm. mais ku dul simple spermatozoïde si àdduna yonent bi la yàlla njëkk wax loolu. loolu aaya la bu Idriss Seck indi xamal ni nit ni muy soqee ko day doon man yu doon lumbu dret doon suux loolu journaliste yi ñoo jël moo boobu. jël ko taxé ko mais Idrissa li mu doon laaj parce que Abdoulaye Wade dafa wax ni man maa créé Idrissa Seck de toute pièce Idrissa Seck bëgg tontu ni ku dul yàlla créé woo nit nit ku juddu man niyu nga doon toq deret doon suux doon yàpp doon xam nga xam nga loolu xam nga loolu dugaloon ci wax jooju xam nga xam nga loolu wax jooju waaw lu tax euh, Idrissa Seck est passé à côté mhm. parce que Abdoulaye Wade mhm. dafa wax au figuré mhm. Idrissa Seck tontu au propre xam nga su ma la nee maa la créé de toute pièce. loolu ak ni la yàlla créé du benn de. loolu mooy yow fi nga jaar yëpp man dama participer grandement influencé ba yow nga doon li nga doon loolu lay tekki. léegi nag Abdoulaye a parlé au figuré Idrissa Seck tontu au propre au propre bi mooy effectivement yàlla ñun ñëpp fi mu ñu jaarale fi nga wax nii loolu mooy propre kon foofu Idrissa Seck dafa jàll complètement à ah, loolu da nga bëgg a tuddee wax ñaaw non déglul li ma wax mooy. yow tey non sa waajur. waaw doo ko wax loolu. mais mais yonent sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko wax loolu. yàlla. waaw am na sañ-sañ bu ne. kay si ku ne. Mhm. waaye yow mii toog juudu Diouf mhm. sa waajur. Mhm. doo toog a moom di ko wax loolu. sa Seck non seulement dafa jàll à côté parce que. Abdoulaye Wade lui parler au figuré. Mhm. moom mu répondre au propre. Mhm. mais Abdoulaye Wade waajur la si moom. warul wax ak moom noonu. xam war a ànd ak yar ak teggin. xam nga Abdoulaye Wade waajur la si Idrissa Seck. waaw kooku ku xam Sénégal Idrissa moo la ko xamal. Idrissa fu mu waxee. waaw ça que Idrissa Seck est passé à côté warul wax noonu. waajuram loolu xëy na da nga jàppee ni passé à côté la mais man jàppee moom passé à côté. xam mooy. seen du juum du jàdd moom moo am màndarga yi gën a rafet dafa am jom ngor fit du juum politicien layal seen ay leader loolu rek ngeen ni dox Tunkara même bu jàddee xam nga xam nga xam nga ñun man ak ñi ma àndal dafa am lu ñu yàlla may muy xel xam nga nit su la yàlla mayee xel waroo jël nit di ko jàppee comme yàlla wala lu mu wax loolu lu doon nangu ne juum na attends attends day juum attends xam nga nit. foofu dafa juum nga Idriss Seck su fekkee taxaw na di wax mbooloo mi ni man nit laa damay juum. xam nga ñun waaw lu tax bu juumee yéen doo leen taxaw ne juum na. no mais su suñ jàppee ne dafa juum la ñuy taxaw ne dafa juum mais fii xoolal. mais yow yaa jàpp ne dafa juum mais ñun jàpp ne dafa juum. déglu ma ah ah peut-être jàngoo rhétorique. Mm-hmm. ok jàngoo rhétorique de ah. xam-xamu rhétorique nit suy wax ak yow o figuré. nga tontu ko au propre da juum. parce que bokk leen niveau yi ngeen di waxee bokk leen même fréquence yi ngeen di émettre mhm. Abdoulaye Wade a parlé au figuré Idriss Seck tontu au propre kon Idriss Seck est passé à côté mhm. léegi nag mhm. ñun tey politiciens yi yéen li ëpp si nit ñi tey boo leen laajee dañu naan politicien waxkatu lu dëgg la wurujkat yow sa bopp wax nga ko nee na ngor jom yooyu yëpp dafa jeex dafa commencé jeex mais suñu réew lay nan lañ koy defaree ak nit ñu mel noonu jiite ñu waaw mais dama la mais du ñooñu. léegi yow nee nga na ñooñ ñëpp nañ leen raxas yéen seen njiit Idriss Seck moom euh, lépp luy maanaam mandarga bu rafet am na ko léegi nañ ko jox réew mu jiite ko. xam nga lu tax surtout que wax loolu xam nga nit ki. ñeneen ñi loolu la ñuy wax seen ay njiit de. xam nga non attends ñëpp loolu la ñuy wax non attends xam nga tamit ñëpp suñu. waxee loolu waa APR nee nañ Macky Sall amul benn defo mhm. waa réew mi nee nañ Idriss mhm. euh, amul benn défaut. waa ñoom Djiboka nee nañ Djiboka amul benn défaut waa AFP nee nañ Moustapha Niasse amul benn défaut yéen benn politicien amul benn défaut te yéen askan wi boo leen laajee politiciens ñu ne leen politiciens yi défaut rek lañu fees benn ñaar. Mhm. Doudou. Mhm. yow danga am jafe-jafe bu mag. Mhm. mooy fi askan wi di waxee yow déggoo fa. parce que askan wi yéen dañ leen wan ne que. yéen waa réew mi dañ leen weddi. parce que 2007 ñu jox leen 14 pour cent ngeen jël deuxième. 2000 euh, ñu teg si juróomi at rek. ngeen wàcc wàcc wàcc ba jël ndaare. yéen ñi am un pour cent rek ngeen raw. mais loolu askan wi dafa wax ak yéen. waaw ah, mais loolu loolu. yéen nag ngeen bañ ko jàngat naan non c'est parce que bii pas dugguñu si nit ñi nangam mais la ak lépp lu ko mënti layal askan wi wax na ak yéen ne leen yéen. Mhm. yoru leen ko. waa léegi déglu ma xam nga Tunkara. li nga wax leer na de xam nga li nga wax dafay dafa leer si li ngay waxee mais dama bëgg nga déglu ma ñu ni seetaan déglu ñu cest à su fekkee da nga ne askan dañoo wan ginnaaw man gisuma loolu lu tax gisuma ko. ah si les chiffres parlent. attends attends attends attends déglu rek les chiffres parlent déglul xamul tax dégluwuma loolu c'est-à-dire Sénégal dafa am lu ñu gëm ak loo xamante ni xëy na moo ngi commencé di dañ ci ci bopp sénégalais yi ñun bi ñu ñëwee Idrissa dañoo toog dafa toog ak leaderu Benno Bokk Yaakaar yëpp ñu toog ñoom kër Macky kër kër Amath Dansokho bi ñu toogee. ñoom ñëpp dañoo signé convention bi ñu génn Dakar non xam nga lu tax lu tax li ñuy wax nii lu tax li ñuy wax mu am solo parce que li ma lay wax ni la ngor ak jom ak kersa boobu dafa des si Idrissa Seck te mooy li nga moo ko téewoon Dakar léegi kon leer na léegi nag loolu léegi su fekkee am na hmm. ñuy politique kon nañ ko jox réew mi rek mais suñ ko joxee réew mi man hmm. maa ne la suñ ko joxee réew mi Idrissa Seck suñ ko joxee réew mi Sénégal fii mu toll parce que lu tax man la Sénégal dina avancé mais ñëpp xam nañu 2000 xam ko hmm. parce que Idriss Seck su mënoon defar Sénégal. Mhm. defar na cees ala cees Thiès jagut. même ma la. Thiès amul benn këru liggéeyukaay. waaw te wax ji bëri wax ji gudd. Mhm. li koy maanaam firndeel mu wax yëpp. Mhm. mooy liggéey. voilà léegi xam nga Thiès amul këru liggéeyukaay non xam nga Thiès. moom dañ Idriss Seck ñun waa Thiès dañ ko mere de. wax ne déglul déglul parce que ñun ñu def ko maire foofu. mu dem tëdd. <laughs> Euh, tugal mhm. juróom benni weer mhm. bàyyi foofu jox ko ba jatara mhm. mais loolu mooy wegul Thiès voilà léegi xam nga loolu loolu loolu xam nga ñàkkal xorom xam nga yow su la waa Thiès digg sax dañ lay rey xam lu tax ñu lay rey su fekkee da nga ni Thiès dafa maire Idrissa Seck te ñu dem élection ñetti maire ak mairie ville ak conseil départemental ba fa nekk ñu jëlaat joxaat ko ko loolu kon mooy war ni yow lii nga wax nii dëkkoo cees parce que xam nga tax xam nga tax man la dëkkoo Thiès xam nga tax man la dëkkoo Thiès su fekkee ñëkk nekk nga cees nekkoon Thiès 2000 avant 2000 ba 2000 ba 2003 2004 nga ñëw Thiès su fekkee nga ne Idriss Seck liggéeyul Thiès. kooku dama naan dëkku Thiès voilà xam nga Thiès su fekkee ñëwoon nga fa dëkk nga fa ñun Thiès lañ juddoo màggee fa xam Thiès na mu meloon. 2000 ñun suñuy bàyyi juddoo Thiès. waaw nee ñun ñu waa Thiès dama ni ah, dama ni man maa la gën a xam Thiès loolu man maa la gën a xam Thiès yow. waa léegi ma laaj la benn affaire. xam nga lu tax non attends non non da nga ma bàyyi ma eggale xam nga tamit damay développé xam nga tamit saa yi mënu ma ñëw tamit fii toog nga posé ma question may développé nga bëgg ma dagg dugal ma fi nga bëgg. Ah, non non doo ma dagg xam nga doo dagg. da ah. laaj lu mu liggéey Thiès nga ma laaj. da liggéey Thiès bul jël affaire bi nga la ah, liggéey Thiès. waaw avant waaw xaaral ñu ñëwaat si déedéet non attends attends je t'en wuy ma da ma laaj Idrissa lan la liggéey Thiès laaj nga ma ko laajoo ma ko. waaw léegi waaw léegi ma lay tontu liggéey Thiès nga bëgg a dem. bon léegi da lim nag parce <laughs> waxtu bi daf ñu bon limal Idrissa Seck defal na voie de contournement à Thiès. de contournement. Idriss Seck tabax na dëkk bu bees tàkk ñu koy wooye ville de Zac Zac ba bi yëpp fonctionnel na. mu ngi fonctionné fa la ñun euh, euh, suñu maire yi sax suñu con suñu maire yi. Zac ba fonctionnel à 100 pour cent à ah, pour cent. très bien Zac bi. lycée technique. lycée technique tabax nañ ko à Thiès. mu ngi fonctionnel à 100 pour cent à moom moo ko tabax moo ko defar waaw. Idriss Seck moo tabax lycée technique waaw. stade Lat Dior. stade benn turbine la amoon actuellement turbine bu wër lañ ko defal Idrissa Seck moo ko defal en 2003 Idrissa Seck moo defar Stade Lat Dior waaw ñëw entre Thiès ba romb lycée Malick Sy yoon bu mag boobu ba jëm ba jëm mairie Idrissa Seck moo ko fa en 2003 boobu mooy promenade bi noonu eggaguñ promenade ba waaw yoon boobu soo demee promenade Thiès waa ak promenade gis nga ni mu meloon bu njëkk Idrissa Seck defar na ko bon léegi ma eggale pare laaj wala da ngaa sonn non vas-y soo ñëwee tey Thiès dugg rond Ngent fi ñu naan rond-point Ngent ba jëm ZAC ba defal nañ fi autoroute boo xamante ni plus de 2 kilomètres boo xam ne jëm ba ZAC ba. autoroute 2 kilomètres. Ah, waaw ak lan soo duggee si biir dëkk Thiès quartier yi ñuy wax Randoulène quartier yi ñuy wax Ablaye Yakhine quartier yi ñuy wax Aiglon quartier yi ñuy wax Parcelles bu si nekk Idrissa def na fa tali goudronné bu bu bu leer nañ. bu dugg ñëpp def na fa tali goudronné. beneen. soo demee Thiès di nga ko fekk ay lampadaire lampe à solaire ak lampe solaire fa dugal soo demee Médina Fall di nga ko fekk tali goudronné ak canalisation Idriss Seck moo ko fa def tali ak canalisation waaw soo ñëwee marché central Thiès Idriss Seck tab toj na marché ba bu mu baax tabax xaat ko ba mu jaar yoon marché central tamit defar na ko bon léegi loolu yëpp xam nga pour man mhm. amul benn maanaa xam nga lu mhm. tax mhm. li am maanaa dëgg dëgg dëgg Doudou Diouf mooy liggéey mais loolu du liggéey xam nga lan mooy liggéey nga teg loo xam ni mhm. doomi Cees mhm. bu ñu xëyee mhm. dañuy génn seen kër yi dem fa liggéey ba ngoon jot ñu ñibbi waat weer dee ñu tàllal seen loxo ñu jox leen ñu fay leen loolu amul Cees mais ma mais ma loolu loolu li tax amul Cees incompétence su président yi fi nekkoon la parce que tey président moom war a def loolu du du maire Thiès moo war a def loolu. léegi li maire Thiès li maire Thiès yënguwul liggéey loolu moom du moom incompétence su kii la yële yële état bi defu ko de. parce que parce que réew dafa am réew dafa am nu muy yooyu ko. réew dafa am nu muy doxee lii nag franchement c'est pas sérieux parce que am yooyu yooyu nga wax am na si yoo xam ne état moo ko def. non xam nga xam dama la bëgg wax. ma wax la. la compétence état dafa am ak compétence municipalité am. tey ji am na ah, foo liggéey compétence état la non déglu ma wax la. xam nga usine usine lu mel ni chemin de fer moo doon. moo doon bijou Thiès créé yeneen liggéey. li mel ni STS. NSTS d' ailleurs Macky Sall Macky Sall ñëw na Thiès parce que li lay wan ni vision ma euh, vision bi ñu am ñoom tegul si yoon parce que ñoom dañoo ñëw ni dañuy jël. waaye yéen euh, seen vision moo baax. non xam nga suñu vision baax. parce que ñoom dañoo ñëw ni dañuy délocaliser seen vision moo baax seen liggéey moo baax. seen ay réalisation ñoo baax léegi ñeneen ñi seen vision baaxul seen leader baaxul seen ay réalisation mais ñeneen nañ ñëw wax seen vision leader très bien merci Doudou sa message lan la waaw sama message daal mooy que sénégalais yi yeewu sénégalais yi xam dañuy nelaw sénégalais yeewu leen li gën ci ñoom yeewu mhm. parce que tey gëm naa ni yow yeewu nga sénégalais yaa ngi nelaw léegi da nga leen di yee pour ñu yeewu ñu gën ci ñoom sénégalais yi ñun xam nañ li gën ci ñoom actuellement tey mooy le frère Idrissa Seck ñu jël ko teg ko ci bopp réew mi parce que li tax ñu wax ko mooy am nañ ci moom yaakaar ni tey li Sénégalais wala incarné ci un leadership lépp daje na ci moom tey Idrissa amul loo xamante ni mën nga taxaw ni lii manqué na ci leadership gis nañu manqué na ci moom parce que taxawaay bi mu am ci wàllu diina ji taxawaay bi mu am ci wàllu dëkk bi taxawaay bi mu am si wàllu askan wi lépp Sénégalais gis nañ ko xam nañ ko rafetlu nañ ko parce que tey nekk nit koo xamante ni Sénégal dafa am ay valeurs sûres yoo xam ne dañ ko war a ngor jom ak fulla ak kersa. kon loolu gis nañ ni Idrissa loolu taxawoon na ko. tey nekk na en phase ak kër sëriñu diine yëpp amul kenn benn sëriñ. kër moom léegi murid la voilà. da ngay tëj sa émission nga bëgg ngay da ngay développé wala da ngay laaj ñun Sénégal lii nga pose nii dafa bokk li commencé yàq senegal mooy fii nga bokk wala fee laa bokk. Ah, Idrissa da ngay bokk fenn ñun Idrissa ñun toppee wuñ ko ni fee la bokk wala fe li ko toppee mooy xarañam ak expertise ak gis ni war naa mën a développer dëkk bi. lañ ko toppee parce que xam nga duñ tontu xam nga duñ ci tontu. waaw bon d'accord loolu duñ mooy Sénégal dafa am valeur yu ñuy garder. te ñun dañoo gëm ni tarixa yëpp benn lañu. déedéet yëpp duñu benn nag. lépp benn la non non nax nga sa bopp yëpp duñu benn. yow da bëgg une yi. mais dafa am différence. mais tarixa yëpp yoonu yàlla lañ jëm. Oh, waay moo tax ma la benn la. dama ne duñu benn. benn hmm. jëm te ñëpp yàlla lañ tax ñëpp yonent bi lañ toll kuy julli bismillah rahmaan rahim ngay wax kuy kuy kuy kuy nodd allahu akbar dafa am loo wax loo xam ne ànd naa mhm. nga sénégalais dañ leen war a yee dañuy nelaw yow li nga wax nii yëpp si sa Seck mhm. ba pare sénégalais yi sanctionné ko loolu mooy sénégalais yaa ngi nelaw waaw d'accord ñun dañ leen war a yee parce que <laughs> sénégalais yi moo tax ñun dañ leen war yee loolu mooy suñu dañ koo sanctionné mhm. sanction boo xam ne. sanction bu saf sàpp. mooy 2007 lii lañ la joxoon yaa jëloon deuxième. 2012 nga jël ndaare. xam nga loolu sanction la. te léegi peuple bi nga xam ne moom mooy souverain. su la sanctionné. mais sawaay mais mën nañoo yeewu. léegi parce que yaakaaroon gisuñu ko si kii. très bien léegi kon. da nga bëgg ñu yeewu. te suñu yeewoo mooy sanction bi ñu sanction négative bi ñu defoon di seek léegi ñu def ko muy sanction positive. loolu lañ moo tax a jug te loolu lañ si loolu la ñuy liggéey. parce que li ñu yaakaaroon si kii ko. ñu bàyyi leen léegi ak seen jàngat bu njëkk si bés